maa ngi nuyu ñëpp ku ci nekk sa tur ak sa sant di tàmbalee nuyoo bi ci ki nga xam ne président mouvement bi di suñu frère di suñu xarit Mohamed Diouf di nuyu bu baax le ministre d'État Augustin Tine bi nga xam ne mooy suñu kilifa fii ci parti bi ci département bu Thiès di nuyu sama xarit sama grand frère le ministre docteur Ndiaye nga xam lepp lo loo wote nañ ko pour le président kenn du ko fa jiitu di nuyu bu baax sama grand frère muy mawdo malik mbay nga xam mo ñu dal ci ci Cité bi parce que souvent dafa tambu di wax ne ak lu mën di am sama rak nga sama rak rek ngay doon lolu moom nuyu bu baax nak responsable yi ma fekk bi parce que jàpp ne comme ni ko Mouhamed waxa woon ñi fi nekk c'est des têtes de monde ñëpp ay responsable lañ parce boo gisee toogaay bi nga xam ne ay kilifa rek ñoo fi toog kaddu yi nag jàpp naa ne li ci gën a am solo ministre d'état Augustin Tine moo koy wax li ñuy wax rek mooy dalal jàmm suñu frère Mouhamed bi nga xam ne dafa jël ay responsabilités ñëw ne élection locale yi dëgg la dama sama gox moo ma jóg waaye dafa am loo xam ne moo dem au delà de nos personnes moi la stabilité du pays et pour ça il faut donner une majorité au président de la République Macky Sall mu ne dina ci dox sama waar dina ci bay sama waar te nag Maodo wax do ko légui ku yokul ya wàññi té mom nak ñewul rek ak ay loxay neenam fi nga xamné tay mom lañu taxaw amul benn dërëm bo xamné amna responsable bu ko jox pour mu organiser ça aussi c'est important parce que souvent dañuy wax ne nit ñi pour ñu def meeting wala dara dañuy ñëw gis waa ji ne ko jox ñu ñu meeting mais fii ñu nekk tey muy man di ministre d'État Augustin Tine di ak ku mu mënti doon amul kenn koo xam ne yëkkati sa dërëm jox Mohamed na ko organiser je vous félicite maa ngi lay sant di la gërëm di gërëm responsable yëpp asalaamaaleykum wa rahmatullah Nous, nous, qui nuyu ki waral le ministre d'État Augustin Tim, responsable départemental tête de liste pour les élections législatives di sunu rakk sunu xarit muy le vice-président de l'Assemblée nationale monsieur Abdou Mbow di nuyu sunu le directeur général de l'ANAMO mi nga xam ne tey moo ñu dalal <clears throat> monsieur Maodo Malick Mbaye di nuyu suñu rakk Ousmane Diop di nuyu tamit Alimar mi nga xamee ne tey moo jógee ba fi mu fu sori ñëw tey fii loolu macha allah wane na Pastefam ak li nga xamante ne moom moo ko di boole ak ki ñuy wax ame Diouf duma guddal parce que suñu kilifa le docteur Augustin mooy wax léegi waaye mën naa wax leen lu gàtt. politique ñett laa xam yëkk yaakaar ak njariñ ñett yooyu mi ngi ci loxo kii nga xamante ne mooy Mouhamed Diouf su amul woon yëg yëg ci askanam su amul woon ci askanam su waa askanam yaakaaruñ ko woon mobilisation bii du ko mën a def jënd ay t-shirt yomb na loué ay chaise yomb na. waaye teg fi ay nit 5 ba tey bu jëw ñu fenn kooku ku ko def da jëriñ ci nga waaye nag su askan wi soxla Sénégal soxla lu waaye yoroon da koy bàyyi tey Sénégal dafa soxla président de la république moo ñu ko war a yoon ci yóbbu ci yoon bi nañu moytu jaxase ba nga xamante ni ñi nga ne ñoo man ak ñi nga xamante ne manuñu nañ leen ràññee te xam leen président de la république dafa jëf ñëpp di gis am na ñoo xam ne nag dañuy wax kii wax te jëfagul waruñ ko mën a méngale ak ki jëf ñu gis moom moo tax tey Ameth Diouf bàyyi lépp ànd ki nga xam ne mooy l'homme de l'espoir l'homme des grands chantiers l'homme de l'espoir l'homme de du pétrole muy le président la république Macky Sall ñu ngi lay nuyu di wax dalal jàmm incha allah dinañ ànd ak yow yóbbu la ba fi nga xamante ne moom la Sénégal yëpp bëgg muy l' émergence di leen sant leen boobu. merci. merci beaucoup merci asalaamaaleykum mbooloo mi asalaamaaleykum ministre d'État notre frère Augustin Tine ñu lay dalal bu ak délégation bi nga àndal.

li nga xamanteni ku ko def ko rëcc mukk mooy nga ci le camp de la réalité ñëw nga ci le camp de la victoire ñëw nga ci camp bi nga xamante mooy le camp du président Macky Sall dama la wax ni président Macky Sall mbër la ci politique ndaanaan la ci yorum réew.

bourse familiale boulet. couverture maladie universelle boulette, tali boulet. Euh, orienté bachelier boulette, Damani, dama pétrole goulette. coupe d'Afrique boulet. enchaînement coupe du monde boulet. xam rafet ku yokkul yaa wàññi ñun on joue pas ñun ñun fawuñu te li nga wax ak li nga liggéeyante fi ñu ci jaaree te xam naa ni yow loo def mbaw moomu soriwul ci liggéey ba donc ni ñu mën a def ba amet ñëw tey ànd ñun ànd ak le docteur Augustin Tine je man dama gëm ni sax teewaay fii day yokk parce que amet xam nga nit. day am njëriñ ma ni Ameth nit day am njëriñ gone nga fi nga màgge fi nga yaroo mais man de ci samay nopp dégg naa njëriñ yi nga xamante ni a nga ko askan wi li nga politique nag jàmbar politique moom ku jël ku jël ku jël say rek yóbbu say rek am ko yow rek xam ko yow rek lekk ko yow rek am say problème yow rek te duñ kenn du ko léeg yow rek donc je pense que sa apport dinañ ko sentir loolu nag buñ ko defee ñun lañ ko defal ñi ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp di leen wax ni leen wax bayul tool élection yi bëgguñu ci cent soixante-cinq députés moo am moo la ñuy laaj ñun nañu lijjanti ba am cent trente yi vingt cinq yi yi

Thank you. moo ma jaral ma ñëw fii tey parce que lu tax mooy nit la te kenn la ci ñun d'accord jàkkaarloo waa côté gauche muy ñànku ñànku Manimbe dañu ko waaye sama waa côté ñu nii merci beaucoup eh ñànku ak Manimbe maa ko doon gis lu topp dëkkee ba waaw muy si àdduna topp dëkkee ba joxloo wéru ma léegi nag docteur Ndiaye ni maa lay fàq wasil ak kërëm docteur Ndiaye faj ma ma wér benn yoon ah, ah, ma ne Cheikh Fatou Fatou lumière lumière dama ko fonk de yow wóor na yàlla telle que le jom, le fit et le fouleur. Et nous, femmes ici présentes, nous sommes tout d'abord des filles, des sœurs, des tantes, des nièces, des mères de famille, mais surtout des battantes. Oui, des battantes. Car ici, il y a des femmes, des femmes, des mères de famille, des jeunes femmes des coiffeuses, des commerçants, des enseignantes. Et sachez, Monsieur que nous sommes des femmes, oui, au propre sens du terme, des femmes avec un grand S, des femmes, les flammes, les flammes, les lames, ni même les larmes ne peuvent nous arrêter. Car nous nous sommes fixés des objectifs et nous restons déterminés à les atteindre, les atteindre. Monsieur Diouf, nous femmes, nous savons qui nous sommes. Nous n'avons pas besoin de nous comparer aux autres, ni aux femmes d'Asie, ni celles d'Europe, ni celles d'Amérique nous Sénégalaises, plus précisément nous Thiessoises, nous avons confiance en nous et nous avons confiance à vous, M. Diouf. Nous savons aussi l'immensité et l'importance de nos valeurs telles que le ngor, le kers, le guillaume, le foula et la faïda. En tout cas, en tout cas, merci M. Diouf de nous, de nous avoir donné l'opportunité de nous joindre à vous

ah poqutaan jege na baat waaye mbagga raw xar xamul déeg donte fa lay naane nag xam déeg ndax mooy nuur ba ca ban ba lu waay mën di wax wax wax ak loo mën a wax wax wax jëmale ko ci jëmm ji toog te yaayam jii yëkkatiwul kàddu di ay da sàmb farami ci ndeer di suñu mag di taw ci kër gi di yaayam jëlee Mouhamed Samb yëkkatiwul kàddu maamam ci Ndeye Waré Ndiaye yëkkatiwul kàddu ku yëkkati kàddu ku dul ñun ñii loo wax waxit la suñuy wax wax Massa xam nga wolof yaay dafa ne waxkat boo gis boo demee këram fekk ko waxande te waxkat bu juree doom waxu lay tudd Ahmed dafa bokk ci famille bu baax famille Samb Fara Mitidère yaayam ci Samb Fara dëkk ci dëkk bi am ay wayjur yu baax kon su wootee lu mel nii war naa mën ne waaye damay teg sama baaraam foofu daal di nuyu honorable député monsieur Abdou Mbow nuyu monsieur le buur aayul dag yaa aay dafa mel ni Macky Sall mi ngi toog xam nga lu tax Macky Sall lépp mu bëgg lépp lu mu joxoñ lépp lu mu yëkkati ñaari jëm yii danga fii ci biir Thiès yal na seen jàmm yàgg moo politique Wow. Ahmed boo on dit la politique requiert des personnalités d'un certain statut héritier d'une bonne lignée qui doit faire de la politique les honnêtes hommes et les intellectuels Et Ahmed mii il est honnête et il est intellectuel xam vous nu ma ko tuddee pour Cheikh foo koy je te jeunesse koo koy dégg ca jeeg ja koo koy dégg dimbali néew di doole yi koo koy dégg dimbali famille yi koo koy dégg dimbali taalibe yi koo koy dégg tey ji Cheikh laa ko tudd di mu ko tag ndax sama jaar baat la li nekk ci moom moo nekk ci man yombul rawatina fii ñu nekk muy biir Thiès rawatina si talami gii nga woote ñëpp ñëw moo tax dama yóbbante ay kaddu honorable député monsieur le ministre yéen a fi toogal président de la république nañu jàppale Ahmed Diouf nañ ko soutenir nañ ko responsabiliser xam ngeen lu tax président Macky dañoo dikk émergence ba pare nag nekk waaye tey émergence boobu bu ñu bëggee am nekk ca faaw ñu jàppale faaw ñu jox ko ay responsabilité faaw ñu jox ko ay ndombay tànk ci réew mi donte sax moom am na ko de. benn ndombay tànk ci réew mi ak ku xam Thiès xam ni politique Thiès ni mu méttee nga woote lu mel nii ñëw kon amee gàcce ngaa laal président de la république war nga la jàppale docteur maa ngi la koy yóbbante war ngeen a jàppale ki nga xam ne mooy Amath Diouf lu lu la ca may di jël wasalaam. ancien de Diouf AG waaw ci noonu la ñuy jëlee monsieur Augustin Tine di nga xam ni mooy représenté la coalition Benno Bokk Yaakaar dans toutes les communes de la région de Thiès

jeunesse, n'importe laquelle, c'est l'avenir d'une nation. Et la nation, c'est l'aboutissement d'un long passé d'efforts et de sacrifices pour défendre les valeurs héritées de nos ancêtres. Et ces valeurs sont et extrinsèques. Ce sont des valeurs civiques, morales et spirituelles de base que jeunesse bounek nekk pour développer Réo. C'est dans cette optique que le président Ahmed Diouf, président du mouvement Vie. Et quand on parle de vie, on entend tout simplement Tundu ci wolof dañu interroger pakistanais ñu qu'est-ce que tu veux être quand tu seras grand et xale bi tontuwul vivant parce que fu dund am l'espoir est permis si aujourd'hui Mohamed, ak ay mbokam ak ay xaritam ak ay sopem lancer le mouvement Vie c'est pour redonner de l'espoir c'est pour apporter des solutions aux problèmes de la jeunesse c'est pour apporter des problèmes euh, des solutions aux problèmes des femmes c'est pour apporter des solutions à tout ce qui touche la société à Terwaram, ak fi nga et de bii mooy kon Mohamed soumettrait en place le mouvement bi qui signifie vision intégrité et engagement dafa am vision et ce n'est pas n'importe quelle vision c'est une vision qui xam étendue une vision qui dépasse nos frontières vision boobu nag la am pour jëmale ko ci jëmale ko ci askanam jëmale ko ci goxam vision boobu mooy une vision de développement vision boo xam ne nit ñi dañuy am dañuy mënal seen bopp ndax Serigne Moussa Ka dafa bind ne ñàkk baaxul ci waaju baax day tas këram xolam di jihaat daan ceebu tey ngay añelaax jaaxal na xërlu si aujourd'hui Mohamed a cette vision c'est pour que nit ñi am c'est pour que jigéen ñi am parce que jigéen ñi ñoo yore kër yi nous mottali dépense yi ñooy yar xale yi su ñooñu amee nous sommes ci coono nit ñi dina wàññeeku donc mu am vision qui ci indi ay solution intégrité nous devons être intègre un homme qui n'est pas intègre ne peut pas se développer ne peut pas asseoir à un prestige. Un homme qui n'est pas intègre ne peut pas apporter des solutions. Un homme qui n'est pas intègre ne peut pas servir sa nation. Et nous devons tous, tout un chacun ici, servir notre nation. Et la nation, c'est le Sénégal. Il faut qu'on ait cette optique d'être des gens d'action, d'intégrité pour asseoir au développement et l'Or Amsola, am solo la kenn ku ci nek apporter ce pierre à l'édifice Mohamed loolu la comprendre c'est pourquoi me lancer intégrité et son engagement bien son engagement que bu li may wax à loolu ma tàmbat te loolu dafa bokk ci man bu amul lu mën a wax dama bëgg loolu am ñu xool am na loolu ma tàmbal waa ci tala bi waaw commencé ci sunu waajur ci sunu directeur di lépp ci ñun le ministre de ça monsieur Augustin Tine di nuyu le ministre monsieur docteur Ndiaye di nuyu l'honorable député sunu grand frère monsieur Abdou Mbow di nuyu Maodo Malick Mbaye di nuyu bépp autorité bi fi nekk di nuyu Ousmane Diop di nuyu suñu yaay ak suñu papa yi fi nekk di nuyu suñu famille yëpp su kanam yi amul seen fay lu tax amuñu seen fay ndax defe naa ni ñu ngi doon yëngu nekk ci dëkk bi nekk doomu dëkk bi juddoo fi yaroo fi màggee fi te si kanam la ñuy tiitaroo ndax lépp lu ñu am si kanam la ba ñu doonul dara lañ fi nekk tey bu ñu demee ba nekk dara ci dëkk bi nit ñi mën ñoo fekk si si tali moo tax kon am ni seen fay ñu leen sant leen gërëm di leen wax ni seen doom dafa dugg ci langue politique bi créé mouvement bi mouvement vie te àdduna lépp dund la boo ci génnee dund moom jeex na kon dund euh, fësal na lépp léegi nag ñu jël décision ànd ak président Macky Sall liggéeyal ko ndax ku ne gis na élection yi passé ñun ay ndaw lañu xëy na communication bi ndax nañu ci ndax ñu ci méthode yu bari dafa jot ñu yeewu man kenn du ma xeexloo wala kenn di ma xulooloo doomam dugg ci huit huit wala quatre quatre dem di jàng ci école yu baax yi ngeen dem di rayante ci àll bu leen ko kenn def loolu dafa am na nga xam ne ñoo ko moom te foofu ñu jël ko moo di ndaw liggéey te suñu waajur ñun ñii lañ yaakaar dama koy wax chaque jour bu ma xëyee fajar jigéen ñi laay romb ci mbedd yi 6 heures du matin des fois ñoom ngay romb ci mbedd ñoom ñooy gàddu seen paan di dox di lijjanti ñooñu da leen a war a noppal dafa jot ndax dañoo liggéeyal ba seen i doomu màgg ñu war leen a noppal noppal bi mooy lan jeunes nañu engagé wu ànd ak président bi defar dëkk bi parce que man du ma ànd ak ku dul dëkk bi li tax ma engagé wu sañal ànd ak le président Macky moo di gis naa li muy def ci dëkk bi te gis naa li muy wane jeunesse bi léegi nag jeunesse bi ñu ñooy yeewu ñu ñooy jël les choses en main ñu ñooy xam li ñu bëgg ñu ñooy xam fi ñu bëgg a dem ñu ni lii lañ bëgg teg ko ci table bi te sekk mën na nekk bu ñu nangu kenn duñu distraire ci ay détails man defe naa ni si kalam yi bi mooy la deuxième fois ngeen gis ma te bi ngeen may gis première fois dama dafa am ku ma ànd ak andil ko fii bii man maa andi sama bopp ak samay kilifa ñu dëkk neen te def naa ne musuma leen a promettre ci àdduna lu ma deful te bëri lii nii ñuy organiser ci une semaine nañ ko waaj une lii lii buñ ko waajoon ci un mois deux mois kenn may nañu nit may nañu kilifa yi ñi ni bu ñu waxee ci dëkk bi ñu exécuté may nañu jeunesse bi li ñu dese mooy booloo nekk benn liggéey suñu man Thiès moo ma ñor Thiès moo ma mi moo ma ñor ci tala mi fi la Wally daan nekk ci tala mi fi la Dioum nekk ci tala mi fi la Dioubou nekk fi la Étoile fi la Galwaan ñeneen ñeneen fi la nekk ñun ñëpp ñooy bokk nday mi Dioubou Galwaan ci euh, ta Senghor ñun ñëpp ñooy fayu ñun ñëpp ñoo bokk liggéey suñu dëkk liggéey suñu gox jeunes yi dama ni nañu yeewu buñ nangoo te ñu nax te du ma ànd ak ku leen di nax bis bu ma duggee fenn def fa benn fan gis ñu ngi leen nax damay roccee ko ba sa bëj ànd ak yéen dem yàlla may nañu fula ji may nañu fayda ji mais suñu xool ba gis ba dugg fa xam ni fii la kon donc je pense dañu def le bon choix. looloo de. jërëjëf si maa ngi leen di ñaan jërëjëf si maa ngi ñaan. liggéey bi day dogo a commencé liggéey bi day dogo a commencé bientôt les élections législatives dama bëgg fi man bok sama côté ci talam bi école ci talam bi mo do kan mooy centre de vote bi gëna mag biir Thiès dama bëgg ñu gagné ko à 100 pour cent te mën na nek te xam naa dina nekk incha allah léegi nag mo accueillir suñu kilifa monsieur le ministre d'État monsieur Augustin Tine dama bëgg bu dé ñëw ngeen jug comme ni ngeen ma defal ngeen defal ko lu ko raw ndax li lepp bu taxawé je pense yàlla ak moom la kon ñu ngi leen sant di leen gërëm kontaan nañ ci yéen bu baax a baax. de la république nous ñi fi teew jiital ci nuyoo bi Mohamed Diouf Mohamed je pense que c'est un jour de chance pour nous parce que tu portes le nom du saint prophète Mohamed. Mohamed, tu as décidé de t'engager pour le développement de Thiès. En ce moment, pour citer l'ami, tu un mouvement, tu tout vie. De par la définition de ton mouvement, vie, mouille vision, mouille gis intégrité da nga fas lepp lo def mu leer nañ engagement dem beje jeex loolu na yow lan nga bëgg defal wa Thiès nous ne sommes pas en campagne c'est la raison pour laquelle je ne parlerai pas campagne Mohamed ce discours bi ni ko terminé je ne sais pas si tu as encore le discours avec toi. Tu as dit je t'aime trois fois. Je vous aime, je vous adore. Tu as défini ta personnalité. Je ne sais pas qui t'a écrit le discours, mais tu as défini ta personnalité. Vision, intégrité, engagement, l'amour de l'autre, Tchofel. Gumnani, li nga bëgg parewoo foofu nga ni xale yi ak jigéen yi danga leen a bëgg a jàppale tu as défini ta personnalité Mohamed loolu moo tax ñu am yaakaar bu wér ci sa engagement pour développer Thiès président de la république mi ngi tàllal ñëpp loxo pour liggéey Sénégal yow nga ñëw jàpp ci liggéey bi war a béy sa waar ànd ci ak say xarit ma suis parce que amna ñuma ci waxtanal ton communicant muy Dan un homme appréciable Dioum aussi et le jeune Fall mu nek ay xalé yu donc je ngi lay féliciter ci sa compagnonnage bobu ak Je di particulièrement un de nos jeunes de l'Alliance pour la République bu dëkk Thiéniba té Biran un jeune engagé Birane maa ngi lay gërëm maa ngi sant parce que yaa ma booleeg Mohamed yàlla def ñu xamante tey te weer na ma ni suñu ànd incha allah dina yàgg parce que ñun ñaar ñëpp dañoo bëgg jàppale Thiès suñu département bi jaarale ko ci monsieur le président de la république ànd ànd ci ak suñu naataangoo yi le ministre docteur Ndiaye mi ngi fi. le vice-président de l'Assemblée nationale, président Abdou Ousmane Diop Mingifi, directeur Ousmane Diop, notre ami le DG Mauro Malik aussi et tous nos jeunes, je peux parler de Biran, de Ibou et de tous les autres, Mustafa, et tout cela que j'aurais oublié et auprès desquels je présente mes sincères excuses. Donc, Mangi vous remercie, Mohamed Wahlani, tey joxante nañu loxo et j'ose espérer que dinañu ànd bu baax a baax te waa Thiès dinañ ko gis seen njëriñ maa ngi leen di gërëm di leen sant.